salaamaaleykum amateurs de foot yi nuyu nañ leen ku ci nekk seen ab tur ak seen ab sant xibaar tey jii 30 juillet 2024 ci wàllub tàggat yaram mu ngi noonu balaa dara képp koo xam ne nag abonné go sunub chaîne YouTube ah bu ko di taay bësal bouton s'abonner bi ngay di liker di commenter di partager mu ngi noonu ñu waxtaanee mbir yi tey nag match yi nga xam ne jot naa am ci Jeux olympiques 2024 foofee ca Paris gis nañ ne suñu mbokk africains yi ñaar ñi dañ leen a jot a dóor ñaar ñi jot dóor waaye kookee di États-Unis moo dóor kookee di Guinée. suñu voisins yi par la marque de 3 bi à 0 Guinée nag éliminé nañ ko nag défaite yi njota am dafa ko jiyee bëri États-Unis moomee nag qualifié na bu baax a baax mu ngi noonee ci jeu bi prochain tour bi États-Unis nag kan lay am kookee di Maroc moom lay ama ah, mu ngi noonee mu doon Maroc boo xam ne nii moom it ah, wane na boppam bu baax a baax Maroc moomee mu ngi noonee France nag moom moo dóor Nouvelle-Zélande par la marque de 3 bi à 0 France nag moomee qualifié na moom tamit war a dajante kan Argentine Argentine bu ñoom ah, Alvarez ñoom lay dajanteel mu doon match boo xam ne nii nar na métti nar na yëngu Alvarez moomee nag génn na Marco Alvarez dafa bëggoon am temps de jeu mu ne bu bëggee am temps de jeu ñun xam nañ loolee bu baax a baax bu dee day réfléchir nañ ko bàyyi mu toog kalaat bu baax a baax mu ngi noonee dun forcer kenn à que mu toog baa mu dem en tout cas joueur la moo xam ne euh, soxlaa nañ ko mais aussi nañ leen bàyyi ñu xelaat Alvarez na génn ba ne moom kàddu yi mu génne doonul lu metti doonul loo xam ne da cee jubluwoon lu luy naqaral xol waaye Julian Alvarez sur les commentaires de Pep Guardiola je n'ai rien dit de mal waxuma dara lu metti ah nee na donc je n'ai rien dit je n'ai à dire aw ma dara lu ma wax j'ai juste di que j'ai besoin de réfléchir ah, mu ngi noone comme je l'ai fait toujours mu ngi noone nee na nag dafa soxlaa woon juste ah di xalaat toog xalaat. carrière am wala euh, soit saison bi nga xam ne jot na ko wees comme ni mu ko tàmm defee saison bi passe def na ko mu ngi noonu comme je l'ai euh, fait toujours après chaque saison euh, pour faire la bilan je dis toujours que jeu me sens bien à City un grand club nee na nag da ko yàgg def te te yàgg naa wax ne ne City club bu mu bëgg na di club bu mag a mag a mag nee na dafay bëgg di toog di xalaat di xam bilan mbiram nan la demee ak nan la naka la ngeen xamee ko noonu le top des plus grands transferts des joueurs anglais mu ngi noonu Jack Grealish moo ne ca kaw a kaw 117 millions d'euros la ko Manchester City jëndee woon Declan Rice Arsenal 116 millions d'euros la ko jëndee woon Bellingham nag Real Madrid 103 millions d'euros moom la ko jënde woon kookee di Harry Kane nag kookee di Bayern Munich mu ngi ko jënde lu tolloo quatre-vingt-quinze millions Manchester United mu ngi ko jënde lu tolloo ak quatre-vingt-sept millions d'euros mu ngi noonee waaye it yamaatuñu foofu kookee di Jadon Sancho Manchester United mu ngi ko jëndee lu tolloo ak quatre-vingt-cinq millions d'euros Mason Mount nag kookee di Manchester United aussi mu ko jëndee lu tolloo ak soixante-quatre millions d'euros waaye it Raheem Sterling Manchester City mu ngi ko jëndee lu tolloo soixante-trois million d'euros benn Wyatt nag Arsenal mu ngi ko jëndee lu toll ak cinquante huit millions d'euros Wyatt kookee ñu naan ko Raheem Sterling encore une fois Chelsea mu ngi ko jëndee lu toll ak cinquante six millions mu ngi noone ay euh, chiffre folle chiffre yu rëy rëy rëy officiel Emile Odero moom nag et un nouveau joueur de Como le gardien de but de classe 97 a signé un contrat de 4 ans foofee ca Como Olympiakos officiel euh, signé na kooke noonu ko Christophe Veld euh, pour un somme pour une somme de 4 millions 4 millions d'euros en provenance de Lecce Posen pour un contrat de quatre ans mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu Olympiakos Southampton nag a confirmé la signature du milieu de terrain japonais ku ñu naan ko euh, Kuryu Matsuki pour un contrat de quatre ans mu ngi noonu il passera sa euh, saison euh, la saison 2024-2025 en prêt du côté de Gostep en Super League Turquie mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu dañ koy aale officiel Zinairo Johnson 17 ans et Laef Old Old Demstram 17 ans ont tous deux signé mën naa ni leur premier contrat professionnel avec l'Ajax Amsterdam aujourd'hui ils ont tous deux remporté la future coupe avec l'Ajax U17 la saison dernière mu ngi noonu et rejoint maintenant l'Ajax U19 mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu officiel Euh, Mohamed Kamara quitte Monaco et signe à Al Sadd montant du transfert 20 millions d'euros ba benn Kamara bi demee beneen Kamara bi ñëw muy kat Lamine Kamara ñu ngi koy xaar foofee ca Monaco. officiel Bournemouth a confirmé la signature de du jeune défenseur Dan Huijsen de la Juventus montant de 10 millions d'euros euh, contrant de 6 ans moom contrat boobee. moom la fa euh, signé. xibaar gi nag dañ koy terminer kan kookee ñoon kon Nico Williams ñëwam foofee ca Barça wala Paris Saint-Germain nu mbiri demee mu ngi noonee kookee di euh, Nico Williams ak Paris Saint-Germain ñoom nee nañ am nañ confiance totale pour foqat yi gone googee nga xam ne Barça du ko bëgg li waral loolu. Luis Enrique di coach Paris Saint-Germain espagnol la waaye it mën naa ni moo doon seen atu pour mën a convaincre booy bi nag xamante naa ak booy bu baax a baax PSG fa la teg premier pas waaye it yamaatuñ foofu leneen li mooy que PSG salaire bi nar a teg moo pour foofu bi baax saa fas yéene teg waaye it yamaatuñ foofu PSG moom it pare na pour teg. double mën naa ni ba ci clause libératoire kookee di euh, mën naa ni euh, ni ko Williams cinquante huit millions d'euros mu ngi noonu nee na pare na pour teg loolee mu doon loo xam ne non seulement di nga convaincre Athletic Bilbao waaye salaire bi mën nga convaincre gone gi nag xaalis moom fu mu dugg moom euh, làmbaay ñaaw waaye yamaatuñu foofu kookee di Enrique moomee nag nee na waa parisien yi jàpp nañ ne mën na doon atu pour transfert kooke di Nico Williams ñëw foofee ca Paris Saint-Germain baax saa nag xaw ma nag da ngeen bëgg retiré ci dossier wu xaw ma nu mu demee noonu en tout cas war nga ngeen cee def fulla ak fayda nag am na opportunité yoo xam ne nii ah benn yoon lay tegu sa kanam bu xasee ba tegu dootul ñëwati mu ngi noonu dootul ñëwati man nag def naa ci sama kéem kàttan ci ay xibaar mais daa mel ni seen dirigeant yi daal ñoom dañuy wax rek que ni naan euh, pare nañ pour jënd ko mais booba léegi réagir guñ ci benn anim boo xam ne nii euh, di nga xam ne ni xel que ni ah ñii pare nañ pour këf ko dem moom Déco nag génn na bay wax naan euh, train bi benn yoon rek lay mën a jaar nee am na train yoo xam ne benn yoon la ñuy jaar du ñu delluwaat mu ngi noonee loolu xaw ma nag da def allusion ak Nico Williams di ko jéem a deg pic bu wane ko boo xasee ba euh, Barça rëcc la dootuñu la toppati sa ginnaaw boo jëlee décision toog foofee ci Athletic Bilbao dootuñ la li lijjanteeti wala nga dem Paris Saint-Germain loolu sa affaire la nag mën naa ni euh, Barça daal club bu mag la mais aussi soxlaa ngeen kooku di da ngeen war a naxtaan ak moom fay prix bi war jël ko dem seen yoon ngeen nekk seen saison bu baax a baax a baax vraiment yéene naa leen ko mu Olmo bu ko defee classico bi déwén mën a neex yëngu tegu ci tax mu ngi noonee gars yi nekkoon xibaar tey jii jàmm ci yéen ba beneen yoon ci yeneen vidéo